waaw xanaa nekkoon sunu garage man chauffeuru Artu nekk sunu garage ñu woo ma ne ma loo jàpp bàyyi ko nga ma laajte mais leeraluñ ma maamam. bi nga xamante ni mooy suma nijaay moo ko yor bi ma waxee loolu ma jël suma téléphone woo ko moom pour bëgg a laaj lan moo xew ma woo ko dugg boîte vocale ma insisté dugg boîte vocale ma woo benn nijaayam laaj ko lu xew mu ne ñu ngi ci géej gi bi ñu añ daal lañu woo nañu Cheikh des na ci géej gi diis yu daw yaram yu mu yëkkati gannaaw bi nga xamante ni kii di doomam bu góor di taawam di wuyoo ci turu Cheikh bile waajur di dikkaat di xamle li nga xamante ni moom lay dund gannaaw bi nga xamante ni doomam bii di seex daal dina desandi ci géej gi ci bisu àllarba bi weesu tax na bés bu yàlla sàkk mu ngi foofu ci bile plage bu Malika ngir mën a gis néew wala koor bi nga xamante ni doomam di xaarandi néew wala koor bi nga xamante ni kooru doomam la ngir waajal ko Cheikh nekk ab ndaw bu am ñaar fukki at yi nga xamante ni nekk tamit élève di jànge ci école bi di l'école Jean Jacques Rousseau fare fii ci dakaar moom mile di Cheikh amoon ab soxna bu jigéen buy wuyoo ci turu Fatou Sainabou si ñoom ñaar ñu bokk benn classe benn école bu ñuy jàngee gannaaw bi nga xamante ni ñëw nañ ci bile plage kii di Cheikh daal di gis kii di Fatou mu nekk di utali géej gi di dem sim tuuti si la ko yëkkati loxo mu mel ni dox bi mu ngi koy commencé ci noonu kii di Cheikh si la daal daw dugg ji ci géej ba ngir dem ngir mën a sauver ki nga xamante ni moo di xaritam bu mu àndaloon foofu ci bile plage bu gàddaay góor gi nekk waajur ci Cheikh gannaaw bi nga xamante ni waajuram bu góor daal na ko jël di ko dippee Cheikh mi moom mi nekk turandoo Cheikh tax na mu yëkkati ay kàddu di dikkaat bu baax a baax ci bile xew-xew nu mu amee ak yenn circonstance lañ leen woowee ngir ñu mën a teewee li nga xamante ni moo di tiis bi waaw euh, moment bi ñu koy wax presque boobu ngoon gi dugg na ndax euh, il que 13 heures la quitté seen kër ñëw fii si Maaro bi comme ni ñu ko waxee nee nañ avant 2 heures lab na bon ñi mu àndaloon taw déplacé wu affaire yooyu bi nga xamee nag euh, ñoom xale yi ñu ngi fi yenn sapeurs yi ñëw ñu ngi gis loxo ak i bopp naan ma nga nee ma nga nee. yaa ma nga nee ma nga nee loolu bu ñu ko waxee koo xam ne sapeur nga wala nga xam dara ci géej yaakaar naa waroon ngaa sóobu ndax tey bu fi fekkoon bu ma fekkoon tey mbaa mu fekk fi papaam mbaa mu fekk fi benn traitam non leer na ma leer yàlla dañuy xuus dem jëli ko waaw parce que xam nañ fi ñu toll si ñun mais kon un sapeur warul ñëw ñu ne ko boppa nga nee muy menacé xale yi nga xam ne ñoo fi nekkoon. yéen yéen wax boppa ngi ne bu ñu demee fekk du moom bu ñu ñëwee yéen dinañ leen yóbbu ba xale yi daw res parce que ay xale lañ nga dégg mais man tey bu mu fekkoon tey man damay damay wax ak ñoom ne leen ma nga nee wala man ma demal sam bopp nga dégg mais fekk ñu fi ñun bi ñu fi ñëw presque ay ay 17 heures 6 heures yooyu lañ fi ñëw nga dégg wër fii yëpp ñu naan xaar leen dina teer ak dina teer depuis 3 jours yi ngi ñoo xam dañuy depp yoof ba Malika dañ koy jaabante ay saret sax takk nañ ko pour wër xale bi mu nekk loo xam ne métti na trop te bu ñu lee yàlla loolu ñuy wax sapeurs yi sax ñun dañoo dégg ne sapeurs yi sax ñoo ne fi ñu leen wax mi ngi nee mais ñun loolu teguñu ko bët man boog laa wax de dama part man boog dama part ba ma fi ñëwee ba léegi barki dem ba tey gisuma sapeur gisuma policier dëgg rek a neex yàlla damay wax rek tey yàlla rek tax gisuma fi benn autorité boo xam ne war ngaa mën a benn geste boo xam ne sax di nga dalal xel te wax dëgg yàlla du yoon métti na métti na ñun suñu réew mi comprendre lan la comme ni ko sama grand bi waxee nee na am na bi nguur bu bees boo xam ne wàcc na xëy na peut-être ñoom bu ñu gisee euh, genre débat yi dinañ ci jël seen responsable gën ciy góorgóorlu ba nga xam ni géej gi même bu fekkee day lekk par euh, trois personnes wala deux personnes sax même bu dee lekk benn sax te ndax mënut a ñàkk ndax géej moom bu fekkee baaxul dafa am ay canal ak affaire yooyu noonu ku fa dugg moom boo yeggee si canal bi na la wan. na léegi nag ñoom niñ jël seen matukaay dina jar sax ñu ut fi ay éléments yoo xam ne ñoom ñoo leen fiy teg ñoo ñu saytu géej gi bu baax a baax xale yi ñu leen di contrôler bu baax ndax xale kenn mënu ko yemale mais bu amee ku koy surveiller mën naa bañ a rëcc yaa ngi dégg mën naa bañ a rëcc waaw léegi nag wax dëgg yàlla daal suñu xolo fees bi ñu sañoon waaw ñu waaw waslu àq góor gile moom muy cosaanoo sa Kaolack ndangaan gannaaw ba nga xamante ni annoncé nañ ko bile tiis si la bàyyi bépp activité bi mu nekkoon ngir teewee li nga xamante ni mooy natt bi dal ci seeni kaw ba tax na moom mi li nekk ñi jaay si bile ndaw di seex tax na mu yëkkati ay kàddu yu tiis tey artu état bu Sénégal ñu xoolaat bu baax baax kaaraange gi ñeel yii yile palaas yi nga xamante ni ñu ëpp si askan yi dañuy faral di fa dalloo di fa noppaloo. waaw war nañ cee mën a dikk ndaxte même bu dul dara mooy man sax fi ma bëgg tàmbalee wax ji mooy dama koy dëxëñaat delloo ko ci yàlla suñu borom rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun donte gisaguñ li ñuy seet jëmm ji muy koor bi waaye am nañ ci yaakaar. am yaakaar bu ñu ci am yaakaar ñaar rek la mooy dañuy dellu ci baatu wala wala xadd karam naa ba ni aadama benn bu njëkk bi mooy tey même bu jekki-jekkoon génn sax ne maa ngi nii ànd ak ruwam sax euh, ku yàlla may tuuti xel di nga xaw a jaaxle tuuti ndaxte euh, ku ne xam na ne ku faatu ci ndox ak ku lakk yàlla suñ borom isaab na leen ba pare maanaam aljana lañ jëm mhm. kon dèjà ñun fi ñu bu ñu fekkoon te dañoo mën a gisaatuñu suñu koor loolu dina bokk ci li ñuy sante yàlla suñu borom mm-hmm. ngir bu ñu suñu borom si suñ jëlee suñu jëmm yi delloo ko ci yàlla mais beneen bi nga xam ni moom moom moo ci ëpp solo mooy mm-hmm. man kii moom mooy turandoo tout tànk bi mm-hmm. bàyyi mu nga ne ñun ñett ñoo màggandoo ñoo bokk benn deret kon daak yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ñàkk mais dafa am loo xam ni faaw ñu bàyyi ko xel mooy faaw ñu yokkaat tuuti tuuti tuuti tuuti maanaam pas-pasu aaraange gi comme dañoo nekk ci beneen nguur gu bees goo xam ne xëy na mën nañoo gën a yokk wattu dañuy dañuy alerté waat rek di xamaat ni mbir mi war naa mën a soppeeku gën a jëm kanam que nii parce que d'après ni ñu waxee mooy euh, xale bi moom keneen moo doon lab mu bëgg koo dimbale ku ne xam ndox dafa baaxoo loolu mu dem parce que boo xamul mënoo da nga ciy des day fekk nga yow da nga cee war a des mais li nga xam ne moo am solo mooy damay gis ci réewu nasaraan yi maanaam géej goo xam ni xam nañ ni doomi aadama da ko bu ñu xamee ni doomu aadama da ko yittewoo rek dañuy jël ay ndaraan yoo xam ne ñoom ñooy jël suuf si drainer ko dinañ ko def léeg-léeg ba benn 100 mètres boo xam ni pour ku bëgg di ku bëgg ku fa bëgg di sangoo maanaam mën ngaa taxaw di dox ci biir géej gi ba def 100 mètres yoo xam ne du ndox mi du laal sa jumbax te ñun loolu war nañ ko mën a def mm. boo demee ba xam ni fii nit dafiy sangu rek war nañ ko mën a def te ko defee ba pare dañuy takkaat yeneen ay ay ay ay yoo xam ni day yu xonq lay doon ak pour wan leen ne yow kat à partir d'aujourd'hui booy dox même ndox mi rombagul sa jumbax fii ak rombo bouton yooyu dañ lay xamal ne la bul ko romb parce que fii lañ la mën a aaree mais xoolal géej gaa ngi nii doo ko gis àllarba la euh, tey la ajjuma boobu ba léegi ñu ngi seet koor bu gisaguñ xam nga kon fi ñu toll nii maanaam man li ma gën a yitteel mooy jàpp naa ne ñu war a wax wax nañ li nga xam ni moom lañ xam ci mbir mi mais man li may wax li nga xam ne moom a gën a yitteel jamono ji ginnaaw bu bu ñuy ñaan yàlla suñu borom mu génneel ñu koor bi ak ak keneen ki ñëpp ku génnagul mu génn te aral ñu géej gi mais bëgg naa autorités yi ñi nga xam ne ñooy saytu géej yi ñu xam ne bépp géej boo xam ne nit dafay nekk di sangu am na nu ñu war a mën a taxawee ci géej googu ba nga xam ni yàlla suñu borom dina dina wàññi sax yenn yenn taux de mortalité yi loolu moom loolu lu loo xam la du jariñ maanaam jafewul pour nga def ko moo gën jékki-jékki bàyyi géej gi nii ku bëgg dugg dugg doo gis benn bidon de sauvetage doo gis benn limite limite boo xam ni limite la boo xam dañ naan la doo ko romb wala dara te nga xam ni géej gi dafa baaxoo pour di jël ay nit loolu damaa bëgg ñu bàyyi ci xel gannaaw si loolu moom mile nekk turandoo ci seex nekkoon xaritam nekkoon woloreem mu nekkoon ku sori si moom tey jii mu ñuy dëkkalaat si jaar jaaru bile ndaw di seex mi nga xamante ni jàngam nekkoon na lool lu mu fonkoon teg si bëggoon na mbokk lool. waaw di wax ni affaire bi boobu ba léegi ñu ngi ci nekk di débat ndax affaire bi yéem nañu yéem goo xam ni boole nañ naqar. jaaxle tiis li ñu boole lépp bari na trop mënuñu ko sax nekk fii di ko wax mais dinañ ci wax tuuti rek pour xamal ni am nañ lu ñu metti trop nag ndax fi ñu toll nii tey famille bi yëpp yëpp depuis trois jours ngi nii kenn liggéeyu ñëpp dañoo bàyyi seen yite ñëw te pourtant kenn ku ci nekk ñii ay fonctionnaire lañ ñii dañoo yor seen liggéey bopp mais mënuñoo liggéey ndax xew-xew bii xew bi nag li tax mu metti mooy kii dafa nekk suñu première doom sama taawu grand frère sama grand frère wëlbatiku tuddee ma ko ngay dégg mu doon macha allah xale boo xam ni macha allah xale bu yaru xale bu am teggit xale bu respecté ay waajuram xale bu bëgg ay waajuram ba ci man mii turandoom dama ma fonk bët gi dem rek la ma mujjee woo di ma wax papa mbaa merewoo ma mën ni ko déedéet merewu ma la non papa maa ngi jégalu ndax boobu ba léegi ñëwaguma seet si la boobu ba tey ma ne ko noo yow comprendre nga comprendre naa la ndax élève nga yow nañ la ñaanal yàlla rek nga góorgóorlu si sa njàng bi yaa ngi dégg pour mun ci avancer waaw moom il paraît que sori woon na nag parce que man sama jàng soriwul noonu mais moom sori woon na ci jàng wax dëgg yàlla macha allah wax dëgg waaye gis nga booba lii la yàlla tudd ci moom torop macha allah torop torop fonkoon na jàngam wax dëgg yàlla ay maamam nag moo ko yar ci maamam la féete woon mais maamam bëggu woon mu def lenn bëggu woon mu dem fenn ba léegi léeg sax bu ñu waree dajee Jurbel tabaski des fois bu ñëwee du fa sax yàgg. kii di trondo si Cheikh daal di yëkkati ay kàddu ngir gannaaw xamle taxawaayu waajur si njaboot jàpp na ni seen bile ndaw amoon. su fekkee ne ndaw tàggu na la ne la damay dem jàngi wareef bi nga xamante ni am nga si moom mooy topp ko surveiller ko. bu baax a baax ba tax na mu ngi leeral bu baax ke ni kii di seen njaboot jàngi la leen tàggu woon ba tax na amuñ woon dara luñ ko mën a tere ngir jàng nekk na li nga xamante ni moom lañ ko mësa sant ba tax na duñ def lu dul delluwaat lépp ci loxoy borom bi. xam nga loolu day xaw metti ndax parent bu yor liggéeyam tey yaa ngi dégg di xëy ko gontu. xëy na peut-être mën na bañ a waaw du mën a surveiller lépp yaa ngi dégg xale boo xam tamit day jàng xëy déclaré dem jàngi yaa ngi dégg heure wàcc jot xam nga wax bon même bu ko gisulee dañuy jàpp ne xëy na peut-être dafa am bu muy def wala peut-être wangam nangam te xale yi kenn mënu leen a contrôler yaa ngi dégg ñoom toujours dañuy xool seen bëgg-bëgg da koy xool ci yow rek boo nga nekkee xale da nga daan jaabante di dem géej di dem ak a ñëw ñun ñëpp ñëpp jaar na ci ñun ñëpp jaar na ci yaa ngi dégg mais tamit li nga xam ne moom moo gën a am solo mooy fa nga xamee ni ñun bëgg nañ fa di fa dem ah mais tamit ñun war nañ faa mën a fekk loo xam ni même bu gàllankoor naree am loolu dina ko wàññi yaa dégg dina ko wàññi ba nga xam ne du indi benn catastrophe. te la. waaw doguma la ci gën a metti xam nga lan la. fi mu toll nii maanaam bés tey bu fii diggante bii nii. bu ko bu ko ay tubaab yoroon rek bu ko ay tubaab yoroon nga gis sécurité bi dafay gën a bari. loolu moom xam naa li may wax bu baax a baax a baax bu ay tubaab ko tàmbaloon fi am fi seen ay activités yu ñuy def fii da gis fii day commencé am sécurité parce que sécurité bi soit tubaab bi moo koy tàmbali wala tubaab bi moo koy moo naan defal leen sécurité mais fii gannaaw bu ñuy jóge ko foofu si geneen wàll ga ñu ngi fa fekk ay ndaw yi nga xamante ni seen bërëbu liggéeykaay mooy fii ci plage puis plage bu Malika ndax ñoom ñi nekk nañ ay maître nageur maanaam ndaw ñi nga xamante ni ñooy dimbali ay tey tàggat képp ki nga xamante ni yittewoo nga ñëw ci bile plage ngir amal fi ab yendu wala ab doxantu ñoo lay tàggat surveiller teg la ci yoon ba nga mën a mucc ci jàmm bile maître nageur di dikkaat bu baax lu waral changement bi ak yëngu-yëngu yu am doole yuñ am fan yi rawatina ci changement climatique bi ak ni nga xamante ni moom la jaww ji doxalee ak li nga xamante ni moo di géej gi tax na loraange yi gën a takku géeju gàddaay moo am lab euh, ñi yaakaar ne fi lay teer si moo tax ñoom ñu ñëw fii ñun demoon nañ fa sax le jour yi doon def euh, ay recherche foofu mais yàlla def na daal gisuñu euh, changement climat bi nag li ko waral mooy nawet bi lay annoncé toujours noor ak nawet buy ñëw changement climat day am moo tudd cooroon cooroon fu mu amee rek géej gi day mouvementé day yëngatu day bari lu muy yëng day fréquenté euh, bay ni day day dekkiwaat day dundawaat moo tax euh, boo gisee boo xoolee géej gi nii a lay nii rek da ngay xam ne géej gi baaxul donte ne daal nii daal na mais courant yi boo xoolee rek ni nga xam ne fii war nañ fee mën a sangu wala fii war ñu fee man a sangu foo gis ci géej gu mag yi vague yi génn ba ci biti foo mën nañ faa taxaw sangu mais foo xamante ni moo gën a rafet comme piscine foofu toujours danger bi moo nekk foofu foofu toujours moo ëpp waaw ñu moytu ko te di ci bàyyi xel place bu ñu dem fekk fa ay maîtres nageurs aussi nañu ñëw laajte maîtres nageurs yi fan la ñu mën a sangoo moom mu indiqué la surveiller la mais boo bëggee bàyyi maître nageur bi dem foo xamante ne ni sore nga ko un kilomètre wala lu ko ëpp boo fa amee jafe-jafe moom balaa daw ba di da wallu si ba am. bile ndaw nekk tamit ku bokk si yile maître nageur di xam ne bu baax jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy am saa su nekk. ñeel li di seen métier di tàggat ak sauver ñi nga xamante ni ñooy faral di ñëw fii ci bile plage ak yeneen plage yi faree fii si dakaar waaw fii fii ni ñuy liggéeyee euh, xaw na metti dama naan metti na sax du ma ne xaw na metti parce que matériel moom zéro zéro la ñu am te fii géej gi ku fiy liggéey ku ne laaj na nga am matériel bu doy pour mën a liggéey. am fi prise en charge yoo xamante ne nii sawaay boo xëyee feebar mënoon kii nga mën a nekk sa bopp mais boo boo booy liggéey fii gratuitement ëllëg mën ngaa feebar sa ay doom mën nañoo feebar booba li nga li nga war a liggéey fii du sa xel du dal ba nga mën a toppatoo ñi nga war a toppatoo ndax euh, nit fu muy liggéeyee war ngaa mën a dalal xelam ba tax li muy li muy liggéey mu mën see concentré wu ndax man mënumaa xëy bàyyiwuma sama kër dépasse war a mën a nekk fii di dimbali ay nit di xalaat sama sama dépense su kër nan laay def nit ma na fee lab ba dem sax man maa ngi toog du ma gis prise en charge bi dafa des matériel dafa des amuñu benn benn benn matériel fii lépp lu ñu fi am rek dañ ko àbb wala ñu dem suñu ay collègues saisir leen ñu may ñu loolu daal lañ fi am te boo ko yoree ren boo si liggéeyee déwén doo si ma a liggéey état baa ngi nii di tijji te ku ne xam na place mali Malika fi mu toll nii plage yi ñuy gën a fréquenté ci la bokk donte dangereux na mais sécurité bi ñu fi gis moo tax euh, léegi ñun daal ñu ngi ñaan autorité yi ñu wallu walluñu gestuñu prise en charge yu baax matériel yu doy ñu liggéeyal leen liggéey bu mucc ay incha beneen maître nageur bi nga xamante ni moom tamit mi ngi faree ci plage bu Malika daal di yëkkati ay kàddu di alerte ñi nga xamante ni. ñoo di bokk moomeel yi ñi fare si meer yi bu Malika Kër Masaar ak Yëmbal ngir ñu xoolaat bu baax seen taxawaay ngir dëmbale askan wi taaj leen fii bu yàgg ba léegi. li ma bëggoon a wax daal mooy euh, departement Kër Massar sax ci laay waxee quoi ma waxee wax ak département Kër Massar donc su ma nee département Kër Massar day nekk euh, Kër Massar Malika Yëmbal ba Jaxaay yëpp ci la bokk. te boo xoolee foofu yëpp mën naa ni ñoom ñëpp géej ji fii la ñuy fréquenté buñ fréquenté wul euh, Tivaouane Peulh Malika la ñuy fréquenté ak Gàddaay donc euh, message bi may lancé mooy que ni donc foofu maire yi bu yeboo ñu jug jël seen responsabilité beñaat bi fii interdit ko du solution solution bi mooy ñu teg ay maître nageur donc euh, ak ay surveillance surveillance bu doy donc pour plage yi si buñ ko defee rek gëm naa ni euh, liñ bëgg dinañ ko am ci kawit aussi ñu wutal leen matériel bu doy matériel bu doy ñun wax fa dëgg yàlla nii ñuy liggéeyee Malika ni ñu fiy liggéeyee buñ amoon matériel bu doy buñ ko amoon wallaahi ba gàddaay ba tiwaawoon pa lépp mën nañ leen couvrir matériel mooy buñ amoon euh, quad quad buñ ko amoon baax na si ñun scooter de maire aussi buñ ko amoon tamit baax na parce que imagine toi nit Euh, labee gàddaay ñu woo la Malika nga war a jël dem ci tali bi jël oto wala nga daw dem loolu day metti boo amoon nag scooter si tefes gi rek ngay daw dem lijjanti li ngay lijjanti vite fait Pape Diop mi njëkk wax sànq ñoom kaabo bi mu amee euh, gàddaay bi sapeur ñëwee wër ba sonn gisuñu ñoom ñi lan woo ñoo dem ñoom it wër nañ wër ba sonn gisuñu dara donc man na ni buñ amoon euh, moyen yi buñ ko amoon ak matériel bi ñu bëgg bu ko amoon li bëgg buñ ko amoon bu baax a baax gëm nañ ni li may waxaat daal mooy maire yi nan nan nan ñu gëstu nan ñu xool bu baax a baax a baax a baax a baax ñëw ci place yi waxtaan ak ñun ñu xool carrément nu ñuy gérer département bi ñu ñuy gérer département de Kër Massar buñ ko buñ ñëwee waxtaan ak ñun wax fa dëgg yàlla jox ñu matériel bi nga xam ni soxla nañ ko wallaahi ñun mën noo couvrir département bi parce que mën naa ni Malika lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt vingt cinq naa nageur mu ngi fi donc vingt cinq yooyu gëm naa ni liñ bëgg buñ ko amoon muy matériel bi Euh, gàddaay ba Tiwaawan Pël lépp mën nañ ko surveiller. maître nageur bi laata muy tëj yëkkati ne ay kàddu di ñaax ndaw yi nga xamante ni dañuy faral di fi jaar bés bu yàlla sàkk mu xam élève wala képp ki nga xamante ni yaa ngi fay jaar bés bu yàlla sàkk mu ngi lay ñaax boo dikkatee nga xool bu baax a baax fan la maître nageur yi nekk ngir ñu mën la womat teg la si yoon ba nga mën a mucc si jaam ak salaam. dénku bi dénku bi mooy. Euh, ku si jàngi ba wàcc bu nekkee da ngaa ñëw géej géej gu amul ay maître boo ñëwee feexlul rek bu laal sax ndox mi ndax wóorul géej gi wóorul bu laal sax ndox mi mën ngaa toog feexlu ba sa heure ñibbi jot nga dem ñibbi bu nekkee fekk nga si plage bi ay maître ñëwal nga laaj maître nageur yi fan lañ mën a sangoo lan lañu nan nan la ñu war a mën sangoo ak ñoom ñu encadré leen wax leen li nga xamante ne moom ngeen mën a dégg ngeen sangu ñibbiwaat ci jàmm. gannaaw ba ñuy dégloo taataan. ay waajuram ay nijaayam ay papaam kenn ku ci nekk yaa ngi xamle bu baax a baax Cheikh mii naka la bëggee woon ay waajuram ak jàngam nu mu koy teelee woon tax na li nga xamante ni moo di natt bëgg a dal ñu def lu du sante ko yàlla xam ne yàlla mooy ku ko dogal